ba léegi ci alquran mbokk yi demal ci alquran suratul fatiha moo njëkk suratul baqara ñaar suratu ali imran ñett suratu nisa quatrième surat quatrième surat nga dem ci aaya 115 muy suratu nisa verset yàlla nee na képp koo xamante ne topploo yonent bi sallallahu alayhi wa alihi subhanallah jaamu yàlla façon jaamit boo xamante ni saxaaba yi xamuñu ko woon radiallahu anhum ndax ñoom ñooy ñu way gëm ya jamono yooyu yàlla nee na yow safara ngay dugg subhanallah yal na yàlla musal ci safara dañ lay bàyyeeg loo jël waaye nag sa mujj mooy safara du sama kàddu alquran mu ngi nii lii alquran la xool ko en français ba léegi wala langue boo ko mën a kiiwee nga dem ci suratu nisa nga dem ci verset 115 benn verset rek 115 am na yeneen versets yu bari yu roog moom mais dama lay jox rek pour mu pour nga mën a comprendre demal ci verset 115 nga jàngal ko sa bopp wala nga wut keneen ku la koy jàngal yàlla def ñoo jox alxuraan mu leer nañ yoonu aljan mbokk yi mu ngi nii moom mooy li ñu yonent bi sallallahu alayhi tamit tracel mooy sunnaam yàlla nee na képp ku juuyoog yonent bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw bañ la wonee leer wan la dëgg ba mu leer wan la alxuraan ak sunna ba mu leer nga bàyyi ko fi topp leneen topp ay mbooloo topp ay jotaay yoo xam ne duñ la fa jàngal yàlla duñ la fa wax yonent saa sallam duñ la fa wax sahabatul kiram duñ la jàngal julli duñ la wax ni li moom mooy booy sa julli bu yà yàqoo noo koy defaree xamaluñ la sunna nga nekk ci bokkaale nekk ci ay bidaa nekk ci ay mbir yàlla xoolul mbooloo yàlla mbooloo mbooloo yitteelu ko yàlla lu ko yitteel li mu soxla mooy ñu dëppoo jàngale yonent bi nee na képp koo xamante ni juuyoo nag yonent sa sallam nga topp leneen wuuteeg yonent bi sallam ak saxaabatul kiram neen dañ lay bàyyi li nga topp te nag boo deewee safara nga jëm yàlla na ci yàlla musal suuratu nisa mooy les femmes verset 115 yàlla mu ne baada audu billahi min asheytan rajim wa man yushaqiqi rasula min baadi ma tabayyana lahu lhuda ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ginnaaw ba leer mu leer nañ nga jiw yoog yoon sallam bàyyi ko bàyyi sunnaam subhaanallah képp kuy topp sunna yoon sallam nga daal di koy mere min baadi ma tabayyana lahu lhuda wa yattabi mu top gayra sabilil muminin beneen yoon bu dul yoon way gëm ya saxaaba yi ñoo ci jiitu radiyallahu anhum nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa saat masira subhanallah yàlla nee na dëkkuwaay boobu moo bon mooy safara subhanallah ñu nar la dugal safara kon jaamu yàlla rek a wóor nañ topp alxuraan ak sunna nañu jaamu yàlla lépp loo xamante ni wax nañ la ko ci diine wala jox nañ la wirdu bi na nga def lii 4000 mille ma ñaata yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxewul benn wirdu boo xamante ni dañ koy compter mu dépassé 100 lépp luñ la wax daal ci diine yow laajal fan la ko yonent bi sallallahu alayhi waxee ban xadiis bu wër est-ce que yonent sallam moo ko wax d'abord est-ce que moo ko def est-ce dañ ko def ci kanamam mu noppi ci bi maanaam mu approuvé ko. naam su dul loolu moytul bul juuyoog yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbooloo lu mu bari yàlla mbooloo boobu yitteelu ko li ko yitteel moom mooy que ni topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay laaj sa biir bàmmeel mooy kan mooy sa yonent ginnaaw bañ la laajee kan mooy sa borom kan mooy sa yonent lan mooy sa diine kon nañu sax ci lii mooy ñetti alquran ak sunna sax ci alquran ak sunna rek a wóor moom mooy suñu diine lislaam bi yal yàlla may ñu dégg ak topp yal yàlla xiir ci boppam nañu jóg jaamu yàlla ay jaam lañ yàlla nag boroom la du morom te ku ci nekk di nga wéet ak borom bi subhanahu yow rek bàmmeel fàttalikul guddi gu njëkk jooy nekk sa biir bàmmeel kayfa sa takunu awalu ko fi qabrik allahumma allahumma jalna min ahlil janna yàlla nañ yàlla yërëm dugal ñu aljanna kon alquran a goog ubbil nga jàng nga xool yàlla ngi wax ak yow